patriote la moo tax ñu doon ay patriote moment bi moment bi moment bi dañoo waroon dem di naafale ci te ñun ay kilifa diina lañ dañoo waroon dem ci jàkk yi di naafale mais tey ñu ngi naafale parce que don de soi la don de soi la xuree si jàmm bu ko neexoon tubaab bi ko doon fay amul xel par minute la ko doon fay te ko doon fay amul nay xel te tey mi ngi fii di xeex réewam te dañuy xeex tey fii ba suba mooy Sonko Sonko mooy Diomaye comme ni nga ko waxee Diomaye mooy Sonko joomaay mooy xuraysi xuraysi mooy jomaay Cheikhul Khadim xam na loolo sama waay yi doon patriote yombul billahi wala régime nga nit mën nga mën nga bëgg a doon lu nekk mais doon patriote yombul parce que ADN la waa ji ADN la ñun dañoo bàyyi suñu lépp jël suñu lépp joxe soxlawuñu dara li amoon démb la moo tax ngeen jàpp ne élection yi quel que soit Alpha Ousmane Sonko da koy gagné li nga gis si le terrain wala sama waa ji yéen yéen yéen a ngi gisal seen bopp da ngeen ñooy campagne boo xoolee ba nga day dox ba léegi gisoo benn convoi boo dajal ñu ne la carrément ñi ñuñu campagne ñu dañoo campagne yéen a ngi xaar Ousmane Sonko génn balaa bi di jeex ñu bu ko neexee ko neexee na tëddi nelaw foofu man suñ amoon lu ma gënal du génn sa campagne mook jomaay ñun ñooy campagne campagne yi ñun ñooy voté ñun ñooy indi fa ñoo li génn nepp ñu ne billaay walaay la jëm xanaa déggoo yow ñoom bu ñu nañ toog fi ñu toog nañ ne fi ñu ne bàyyi ñun ñu xeex xeex xeex bi campagne campagne bi dam voté leen xëdd voté ndogu sibile génne leen pale ci même guddi gi génne leen Cap Manuel. ñun koor may envie te tey tey ñun dañoo wooroon tey ñu ma mi wax dañoo wooroon tey mais xoolal depuis ci terrain di jaayante amul leneen lu dul loolu amul leneen 14 heures ba léegi ñu ci terrain di jaayante fàttali sax ñu dañoo woor ñu projet bee ñu ñor ku baax suñu ñax suñu doole suñu lépp lañ jox billaay wala la sànq dañ lay gis ngay bàkk Serigne Bara Ndiaye di ko waxal baax. ah ñëwaat si. ngi ñëw foofu ma Mame Pathé rek xoolal ma Mame Pathé si keroog ba ñuy toj veeru waaw su ma la image boobu rek laa gis tey fi ñu toll nii xam nga doomu aadama boo boo toppee la neex ba mu jeex loolu nag dina nga ci teg la ñu toll. baat bi xaw a doy topp lu ko neex ba mu jeex léegi mu ngi récolté lu ko naqari nañ sant yàlla rek nañ sant yàlla xam ne Ousmane bu soobee suñu borom di ngeen kontaan tous les patriotes di ngeen kontaan dina génn fan yu néew bu soobee suñu borom incha bi moo euh, ci li nga xam par li nga xam ne coalition Diomaye président euh, ñoom Euh, toujours euh, euh, par rapport ak li nga xamante ni rek moom moo ni daal di di ñu ba tey Babacar jëm en tout cas ci fi nga xamante ni rek mooy jëm ci li nga xamante

Sonko Sonko waaw dëggantaan Sonko jumaa jumaa Sonko ñun moomuñ fii de lañ moom digg Ndakaaru ñun ñooy borom Ndakaaru waaw waaw ku bëgg Dakar rek ñëw si ñun kuñ yaatalul doo am dara ñun ay patriote lañ dëggantaan pur et dur ñun ñooy borom Dakar waxuma la Sacré-Cœur kese de fii ku ñemee nga ñëw taxaw nga wax te ñun ñooy borom fii. déggu ma ñun ñooy borom. Sonko mooy borom Sénégal déggoo ma de Sonko xoolal ndigal rek lay wax ñu jafe a part ça leneen amatu du sëriñ du waykat du mbëru làmb du kenn Sonko moom la mooy fii wàllu jamono ji moom la yàlla may loolu nañ ko nangu te dee mu neex mu naqare ñun ay patriote lañ dañoo gëm suñ bopp dañoo bëgg suñu réew Sénégal si kanam rek kese dong ndam rek forever incha allah. Euh, voilà mi ngi noonu mbokk internet yu Sans Limites TV actuellement loolooy jàmm ji loolu mooy jàmm ji ñëpp benn lañ waaw li ñu gis fii nice na trop parce que mais on peut dire que li ñu gis fii nice na parce que bu ñu demee ba caravane bi romb si buntu kër Barthélémy Dias vraiment ñoom waa buntu kër gi sax nuyoo salué nañ caravane bi tàllal seen loxo loolu mais loolu mais loolu c'est important mais xam nga lan laa condamné mooy bu ñuy dajee di xëppante ay asib di ay pom pour man loolu c'est inadmissible moo tax vraiment acte dañ koy magnifier bu baax a baax lii leçon la pour ñi nga xam ne ñooy yëpp kenn ku si nekk boo rombee sa ceefu morom wala sa buntu kër jàmbur pour man li nga war a mun a def rek mooy nga dal ànd ak tey bañ a sànnante xeer bañ saagante ku si nekk romb parce que ku nekk am nga droit dem fu la neex def sa campagne ku si nekk am nga droit daal di jàll diwaan boo xam ne tey jàpp nga ni rek war nga faa jàllale sa message loolu moo waral ñoom kenn ku si nekk si ñoom war na ñoo mën a am ab euh, maturité boo xam ne euh, ku ñëw ku ñu ñëw sa diwaan rek nga nga teey ànd ak dal ànd ak yar ànd ak teggin te vraiment loolu la ñu gis fii si duwaanu euh, koñ bu Barthélémy Dias ba si buntu këram mu nekk acte boo xam ne acte bu naaj la. effectivement parce que la politique wali c'est affaire de gentleman ah tey euh, vraiment acte de violence amul benn benn sens te itam amul benn rendement moo tax tey puisque dañu nekk en période de campagne candidat bu ci nekk am nga droit jaar ci buntu kër candidat bu mën ci doon. mais ci euh, am paix lépp jàmm lal ko ak li nga xam ni moom moo di euh, cadre campagne bi moo tax lii ni tey euh, dañu koy saluer vraiment. cortège dafa am benn dafa am benn jàngat boo xam ne ah. dama ko see def mooy Barthélémy Dias ba si koñ jum dëkk daa bëri waa Ousmane Sonko. waaw waaw. que boo xoolee même ñi mu sësandool kër. waaw ñi mu dëkkandool tey ñi mu sësandool kër rek sax. ñi ci kaw balcon ñii takk nañu bracelet Euh, Ousmane Sonko wala ñu yor tiset bi wala ñu génn wala ñu taxaw ci balcon yi. di euh, féliciter vraiment caravane bi nga xam ne. c'est la démocratie tamit c'est la démocratie mais Barthélémy Diaz son père Jean-Paul Diaz mais il est de il est de la paire non Barthélémy Diaz mi ngi ci Khalifa Ababacar Sall. Ah, nekkoon ci coalition kon loolu. yaakaar naa que ni amul benn souci yaa ko souci tey loolu euh, moom la ñu xamee Sénégal wàll noonu Khoureyssi Thiam ba tey mu ngi saafoon tey moom tamit ak euh, askanu Mermoz sacré euh, diwaan bi nga xam ne euh, mooy fief Barthélémy Diaz en tout cas c'est à saluer c'est à magnifier caravane coalition Diomaye ak ñoom Cheikh Bara Khoureyssi Thiam romb juste buntu kër Barthélémy Diaz donc mu nekk anam goo xam ne gaa rafetlu nañ ko parce que tàllal nañ tàllal loxo euh, mu nekk loo xam ne xëy na ñu si bëri ñu ngi si doon tiit que bu ñu mbàkkantee wala bu ñu laalantee mën na yee li nga xam ne mooy fitna waaye nag ba tey askanu Sénégal ak ñi nga xam ne ñoom ñooy citoyen sénégalais que ni Sénégal euh, réew boo xam ne la ñun ñëpp ñoo ko moom ñoo bokk ndey ñoo bokk baay voilà ñoo bokk ndey ñoo bokk baay politique bi ak élection day weesu te bu boobaa tamit ku su nekk rek li nga defoon sa morom bu ëllëgee boo ko rombee yaay sëgg rek moo tax lépp lu ñu ciy def na nekk loo xam ne lu rafet la lépp lu ñu def na nekk loo xam ne euh, ku si nekk boo koy def nga ànd ak sa xel nga ànd ak sa sago bañ a def loo xam ne ëllëg dañ ci tuuti ëllëg ëllëg dinañ la si dinañ la ŋaññi wala dinañ la dinañ la dinañ la maanaam dinañ la yëkkati wax la yu ñaaw loolu dara jaru ko si kon nag nga xam ne ñoom amal karabaan yi ñi nga xam euh, ñoo nekk euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk euh, nañu rek daal di nañu rek daal di ànd ak dal ànd li nga xam ne mooy teey su ko defee rek lépp jaar yoon su ko defee réew mi delluwaat si jàmm bi nga xam ne moom lañ ko amee woon yaakaar naa ne donc su ko defee rek ñu daal di ànd ak ñi nga xam ne xam ne ñooy nekk askan Sénégal donc loolu am na solo lool mbokk internet yi kon ba léegi rek maa ngi ànd ak yéen si euh, li nga xam ne mooy si cortège gi euh, ñu euh, waa cortège bi oto bi war na mën a daw nànk de voilà oto bi war na mën a daw nànk ñu xaarante rek voilà mu ngi noonu en tout cas ba tey rek ñu ànd ak yéen si xam ne. mooy fii si diwaanu Mermoz foo romb si kër yi rek gars yi ñu ngi génn yor seen spécimen bu Bassirou Diomaye Faye ñi yor seen photo Ousmane Sonko ak Diomaye ñi yor seen